acca final baa ngi noonu final baa ngi noonu de waaw waaw final <laughs> final baa ngi noonu jarul xoole final baa ngi noonu ñaari mbër yaa noonu diggante nijaay ak jërbaatam la acca final baa ngi noonu final diggante Fils de Balil Siki ak Tas waaw diggante Ndiaye ak Kër Batam di bëgg waa Tagasilat ndeysaan Mohamed Sène géej xaalis Tagasilat ñoo ngi lay ziar waa Tagasilat yëpp ñoo ngi leen di ziar final baa ngi noonu tas yaakaar fils de Bandung diggante Ndiaye la ak Kër Batam eh eh taxabal na ko eh waa lii lan la eh eh jeex na fils de jël na lamb ji ci kaw tas yaakaar waaw waaw final la noonu la mun a demee ñoo bokk deret ndeysaan diggante jërbaat la ak nijaayam jërbaat ja ah. wala nijaay ja daan na jërbaat ja acca lamb ja jeex na tagasi la ti la woon waaw waaw general give it, don't give it, give it, all